gën mm. Mm-hmm. vous pensez euh, mais pas matar ñu des ba tey euh, si ka xalifa Sall ak euh, kii di Barthélémy Diaz ak liste bi nga xam ne mun nañu wax ne fu mu toll nii seen liste bi Dakar taq na suuf bu baax parce que kii di leur mandataire Déthié Fall tey à 9h demoon foofule si DGE c'est comme ça ngir rek munal indil ay changement par rapport ak seen yooyu les listes nga xam ne. mun nañu wax ne respecté woon yi nga xam ne mooy système euh, de euh, parité bi ñu bëri jàpp ne euh, cible bi moo nekk kii di Barthélémy Diaz pour mu bañ a rek teew foofu à l'Assemblée nationale est-ce que loolu xel mun na ko nangu bu ñu xoolee aussi Barthélémy Diaz compagnonnage am ak kii nga xam ne mooy Khalifa Ababacar Sall. non je pense pas que pense pas que tey jii Khalifa di def loo xamante ni dafay dafay dafay dafay dafay mettre un peu ay baton ci ci. ci ci roue wala ci yoonu euh, Barthélémy Dias je pense pas a dem euh, présidence de non mais même bu ko bëggoon def pense pas que mu defee que nii parce que boo xoolee euh, en réalité li xew mën nañ jàpp que ni am na manipulation mais je pense pa que mu nekk ci niveau mm. mais li ma si xaw a jaaxal nag quand même loolu moom ay question la yu Sénégalais yi di posé mm. mooy comment se fait-il que parce que boo dégloo Barthélémy Dias li mu wax vendredi à travers une petite vidéo moom dafa doon dédouané sax euh, le gars là Saliou Sarr et boom juum bu ma juumul aussi gis naa Saliou Sarr def communiqué di weddi yenn tuuma yi nga xamante nañ ko doon jël teg ko ci ndoddam mhm. alors Saliou Sarr boobu aussi c'est important de rappeler que bu ñu waxee turam c'est parce que benn homme politique bu tudd euh, Farba Ngom mhm. moom moo ko cité Farba Ngom liggéeyul DGE mm. nekkul euh, mandataire u Benno Bokk Yaakaar comment se fait-il que moom mu xam ni Farba Ngom moo euh, ni ni Saliou Sarr moom moo déposé liste boo xamante ne respecté wul parité loolu question la bu nekkee administration bi dañ ko politiser nag ba noonu ba yenn information mi fuité mën nañ jàpp quand même quelque part que Saliou Sarr li mu xamante ne wax na ko ñoom Déthié Fall Déthié Fall wax ko sànq mooy dañ ko induire en erreur lañ parce que Déthié Fall li mu wax mooy Saliou Sarr dafa ñëw ñu dénk ko Déthié Fall da ko dénk euh, ci ay témoins ni ko demal nga yóbbu list bi bul ci changé dara ba mu demee ba ci biir war a dugal mu ni si la ko benn benn benn benn waay bi liggéey foofu ni ko à partir de cinquième cinquième personne mun nga bañ a respecter li nga xamante ni mooy parité mhm. moom mu changé list bi bien que loolu du rôle am mais moom loolu la jox comme explication explication yooyu nag man dalu sama xel parce que yaakaar naa ne bu ñu ma nuwee yóbbul ma feuille bi ci bureau jàmbur damay jël feuille bi yóbbu ko sama yoon newu ci ordre da nga jàpp ne Ngom bi moo naka feeñ si boo moytuwul parce que parce que parce que parce que li li li li am solo mooy kiy wax wax ji mooy ba Ngom mhm. te ba Ngom ci yeewi askan bi la jaaroon mhm. indi Jibril Ngom boobu fexe ba mu def li muy def donc mën naa njoxtaat ci moom mu amaat beneen nit boo xamante ne dina jaaraat ci moom ba indi ay dëgg sax mais je pense pas que mu jógee ci Khalifa sax Khalifa Sall nag lenn nañ koy mën a wax mooy il veut toujours être l'homme d'état qu'il est te parfois nag il faut mu génn jox ay explication parce que comment se fait-il que Barthélémy Diaz nekkul au même niveau d'information que Déthié Fall mhm. parce que Barthélémy Diaz li mu wax ci vidéo mboobu dafa waroo ak lu Déthié Fall parce que Barthélémy Diaz nee na comment se il que euh, Salou Sall mi nga xamante ni nekkul mandataire di déposer ay liste alors que euh, lu mu tudd Déthié Fall nee na Salou Sall moo déposé liste parce que man maa ko mandaté hmm. donc seen seen seen seen sortie waroon nañu ko mën a harmoniser. waroon nañu mën a togg waxtaan te loolu nag wax dëgg yàlla ki nga xamante ni moom moom nañ joxoon euh, wàllum investiture yi mooy li ma la wax sànq rek Khalifa Sall mu jël ay responsabilités dès le départ. ba coow li naree commencé ba mu déggee sax ni ñee am nañu initiative def conférence de presse waroon na leen woo ni leen sëñ bi kaay leen bu nekkee juum te dafa am ci man mii la man maa juum damay amandé wu devant vous parce lii wax mooy lii parce que sénégalais yi fàttali ni ñoom seen élection yi passe sénégalais mooy yeewi askan bi sénégalais yi ñoom ñoo jël seen koppar jox leen ko ñu leen dem leen ngeen campagne mhm. te ci lool nag wax dëgg yàlla li ñu doon xaar si ñoom mooy ñu fexe ba dynamique boobu noonu mu wéy dem ci élection euh, législative parce que am na ay enjeux yoo xamante ni kenn du ko wax. et ce système de parité aussi homme femme aussi est-ce que waruñ ko euh, xoolaat tamit est-ce que nekkul aussi loolu moo chamboulé aussi euh, bu baax li nga xam ne mooy askan wi. waaw mais xam nga xam nga parité bi nuñ ko nuñ ko nuñ ko defee moom euh, Abdoulaye Wade ba mu koy def euh, jublu woon na ci lu baax. Mm-hmm. mais euh, en fait kon dafay gën a ñuru loo xamante ne lu contre-productif la. voilà tey jii bon li ci positif mooy njàpp bi te bu ko neexee tey jii mu def politique tey boo demee def fi politique nga feeñ tuuti ci yeewi askan bi. élection bii waaj da leer ni mhm. di nga bokk ci ñi nga xamante ni am nañu chance bu nekkee député doon député bu nekkee maire doon maire mhm. parce que parité bi ak nu mu demee nu mu tëddee mhm. mais am na ay jamono ci ginnaaw xam nga tey jii bu parité amul woon par exemple dañ lay naan yeewi askan boo moytul bu ñuy bon yeewi askan wala benn bokk yaa bu ñuy teg liste liste bi yëpp ay góor lay doon ay ñaara si nekk jigéen ñetta si nekk jigéen mais parité bi fu mu doon am solo mooy gouvernement bi ñi nga xamante ni dafa war a euh, lu mu tudd doxal politique gu président de la République. ñu ne gouvernement par exemple trente ministres la quinze jigéen ñu compétente ñàkkul ci Sénégal. ñu ni quinze jigéen moo fay nekk quinze góor moo fay nekk. ñu ni direction yi nangami direction moo am Sénégal jigéen ñu compétente ñàkkul ñu Sénégal nangami direction la dañ koy def moitié moitié. góor ñi fii ak compétence égale jigéen ñi fii ak compétence égale mais doo ñëw di leen naan ci liste yi da ngeen di ñëw présenter ay jigéen kese loolu lu muy indi mooy ay corruption. parfois di nga gis liste yoo xamante ni du ñu am jigéen mhm. dañuy dem xëcc benn jigéen boo xamante ni yoonam newu ci politique tout simplement parce que il faut nga am liste say suppléant déjà pour nga am problème pour nga am ay ay jigéen ñoo def foofu problème la parce que du ñëpp ñoo intéressé ci politique mhm. léegi da ngay dem di liggéey di lijjanti ay affaire di lijjanti ay tur ay ay sant jàmbur jël leen dugal leen ci liste alors que ñoom amuñu benn benn benn ambition pour nekk foofu mhm. pense que ni war nañ ko mën a xoolaat te vraiment def ko ci li nga xamante ni mooy liy doxal Sénégal ministères yi mhm. ñu fexe man maanaam ministères yi gouvernement am ñu fexe ba parité bi am foofu direction yi ñu fexe ba parité bi am foofu le reste nag ki bëgg dem nekk député Caroline Faye mi ngi fi elle s'est battue toute seule elle n'avait pas besoin que ñu lay naan parce que parrainage la mooy tax nga justifier sa numéro 2 wala sa numéro 3 mais tey ji malheureusement méritu jigéen sax dañ koy wàññi mhm. parce que léegi da ngay nekk ci benn benn position bu confortable tout simplement parce que sexe féminin loolu kese la fait te loolu est-ce que est-ce que loolu nekkul sax di rabaisser li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy jigéen parce que jigéen ci compétence nañ koy nañ koy nattee comme ni ñuy nattee góor mm-hmm. mais buñ ko bëggee jël parce que jigéen la rek ni ko comme góor moo ci kaw rek automatiquement jigéen moo ne ci suuf wala comme jigéen moo ne ci kaw rek automatiquement góor moo ne ci suuf dafay poser problème. le cas Benno Bokk Yaakaar on parle souvent de Yewwi Askan Wi ak euh, voilà euh, euh, lu mu bañ a respecter li nga xam ne moo nekk parrainage foofu le si Ndakaaru mais Yewwi Askan Wi aussi seen ay surplus de parrainage aussi gis Benno Bokk Yaakaar autant pour moi tax na fu mu toll nii Yewwi Askan Wi jàpp ne ñoom aussi dañ leen war Euh, teg si yoon aussi Pa Matar mais loolu yoon moo ko wax parce que bu ñu la nuyee jurisprudence jurisprudence mooy loo xamante ne xewoon na fi ba mu xewee lan moo amoon ñu ni nii kon bu beneen situation bu amee noonu jurisprudence dafay dafay am valeur valeur valeur boobu day ñëw waaw day ñëw euh, directement ñu ni situation bi mais Ndiaye Cissé wax c'était pas un surplus quand même euh, affaire irrégularité la amoon fépp irrégularité la non non non non kii lañ la wax xam nga moom beneen xam nga conseil constitutionnel. bu lay jox benn décision. da koy motiver ci ay considérants. considerant yi parfois day varier ba cinq ba six considérants day naan considérant que considerant que considérant que te considérant bu ne mun na ci mën na ci basé wu. pour dàq li nga xamante mooy sa candidature te ci considérant bu muy wax ci surplus yooyu lu mu wax ni que nii dañ ko laaj nangami parrainage mu indi li ëpp loolu rek waroon na mën a tax ba candidature am ñu ñu ñu invalider ko mu wéyal di motiver li nga xamante ni parce que conseil constitutionnel du jaar ci benn benn benn benn benn benn justification amul benn loi wala benn benn kii euh, benn benn arrêté bu ñuy bu ñuy rendre boo xamante ni dañ koy def ci benn euh, considérant dañ la koy justifier tegal la ko ci ay considérant yu bëri léegi nag ci benn considérant yooyu dafa ni dañ la laaj cinquante mille parrainage par exemple nga indi soixante mille parrainage loolu rek waroon na tax ba yow sa candidature ñu invalider ko loolu la ko conseil constitutionnel wax donc boo jëlee loolu textuellement da ngay naan benn Bokk Yaakaar bu ñu demee ci élection waruñu sax wax waxu élection dañuy toog di ko seetaan président Macky Sall mooy président boo xamante ni moo jiite coalition lu mus am ci àdduna bu dul dem ci élection boo xamante day day day euh, élection législative la mm-hmm. mais malheureusement Sénégal waa moom Macky la tudd sant Sall lu ko ci neex lu ko ci arrangé la ciy def parrainage bii ñuy wax di si coo CEDEAO bi nga xamante ni moom moo ñu moom moo ñu moom moo ñu sut parce que suñu carte dante yii CEDEAO ci nekk suñu passeport yi CEDEAO ci nekk CEDEAO boobu moom moo ni parrainage yu baaxul dañ ko fi war a jëlee président Macky Sall ni damay def lu ma neex CEDEAO bi nii élection boo fay dem six mois avant élection waroo laal benn mbir boo xamante ni dafay laal ci wàllum élection benn loi doog fa laal tant que amoo li nga xamante ni mooy consensus maanaam ku opposition bi maanaam ku jógee opposition ku jógee pouvoir bi ñëpp d'accord ni war nañu mën a laal lii Macky Sall defu ko respecté wu ci lenn def lu ko neex donc bu ñu ñëwee ci affaire benn bokk yaakaar mais mun mënuñu si am benn yaakaar lu dul moom mu forcing comme ni mu koy defee parce que bu ñu nekkul woon ci bu ñu nekkoon ci réew boo xamante ne loi moo ko tëgg wax dëgg yàlla duñu sax nekk fii di débat parce que xale bu ndaw bu déggee lu considérant bi wax te constitutionnaliste wax ko ci Malick Gakou dañ ko ni li nga xamante ne dañ la ko laajoon dafa ëpp benn dafa ëpp te loolu rek waroon na tax ñu invalider sa candidature demaat ci beneen demaat ci beneen demaat ci beneen mais pas que waxuñu ni euh, dafa amoon ay irrégularité wala ay région ak yooyu noonu yooyu yëpp ci ay considérants yi la bokk mais benn considérant bu ne war na mën a war na mën a war na mën a doy sëkk pour nga invalider li nga xamante ne moo nekkoon candidat bi te ci benn considérant bi mbiru surplus da ci nekkoon. Euh, benn bokk yaakaar euh, président de la république Macky mooy euh, capitaine voilà bu benn bokk yaakaar mais dafa mel ni comme ba tey pour ñu mën a xam ñan lañu investir au niveau national wala sax si département yi dañuy garder jalousement voilà seen ay non qu'est-ce qui justifie cela. dañu lu ump sénégalais fii li ñu bëgg xam-xam ko nañu intéressé wul kenn parce que boo xoolee bu ñu demee ci seen élection yi passé intéressé ne fii mënoo fi fii loo fi tëdd wax ci néeg ñu génn jottali ko lu mënul ne conseil des ministres ngay toog wala réunion yoo xamante ni yu yu yu yu doy waar la fi nga toog ngay toog ñu wax la lu fa xewoon. Mhm. encore que loo xamante ni dem na ci ay bureau jaar ci ay nit. ak yeneen ak yeneen intéressé wu Sénégalais parce que li intéressé woon Sénégalais mooy tête de liste Dakar kan lay doon tête de liste nationale fee kan lay doon ak tête de liste nationale lu Benno Bokk Yaakaar mais ba ñu gisee quand même que tête de liste nationale Benno Bokk Yaakaar dañu jël jiital fa euh, Mimi Touré Mimi Touré di fàttali ni nekkoon na fi tête de ba muy ne tête de dañ ko fi duma duma yu métti ci la toxoo euh, lu mu tudd Grand Yoff dem dem Kaolack ba mu demee Kaolack ba tey ci benn élection mais loolu tey bu ñëwaatee. mais tu te dis que ni peut-être Macky Sall ci boppam xam na ni amatul fu mu jëm amatul pexe parce que bu ñuy bu ñuy fàttaliku kan moo nekkoon coordonnateur national benn bokk yaa si jamonoy local yi. mais Pamata je suis pas d'accord en termes d'image Mimi Touré face à Ousmane Sonko nga xam ne. yow yaa bëgg def face à face waaye nu mu <laughs> mënut a nekk kooku baax te kooku kooku Khalifa Sall réglé na problème am te Khalifa Sall mu ngi réglé problème newul ci kër nekkul ci biir voilà mën ne dafa am ay problème euh, euh, par rapport ak histoire de mœurs si wàllum justice aussi est-ce que bu ñu xoolee aussi euh, ñaari profil yooyu. non non non non elle n'est pas plus avantageuse. non non non non non Macky Sall dafa amul pexe rek parce que bu amoon pexe boo xoolee diggante local yi mooy li ma la wax nii local yeeg léegi yàggul local yi ñu jël. Euh, euh, kii Amadou Ba def ko lan coordinateur national. Mm. mais normalement ku ñu def coordinateur national mm-hmm. defu ñu la tête de mm-hmm. ñu jël tête de bi mm-hmm. def ko ki nga xamante ni moom mooy Diouf Sarr. Diouf Sarr dem ci élection gars yi du ma ko presque cent mille voix. du cinquante mille du trente mille du quarante presque cent mille voix quatre vingt dix mille et ñu gañee la ko ci élection euh, locale yow sa coordonnateur bi nga xamante ni moom moo la jiite woon. ñu dem ci local ñu dem ci législatif jëluñu ko ñu ko ni ko day dem tëdd liste mais quand même c'est dire que ni président Macky Sall amatul si ñoom confiance bu amul confiance ci Amadou Ba amul confiance ci Diouf Sarr mi mu jee def Dakar mais ci kan lay am confiance amatul en fait dafa amatul choix lu mu am ci ay choix moo bariwul mu ni xaaral ma dem jël si ki nga xamante ne xamoon na élection miinoon na élection te aussi moom saf na Lamine dina dem di daaga sante ak ñoom parce que saa yu Ousmane Sonko waxee moom mooy génn di ko tontu jamono ay jamono bu bu waa Karim Wade yi gën di wax moom mooy gën ko tontu donc loolu